mukarraman bi qirat taahaati wa sadadi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokki jullit di mbokki taalib yi yéen ñi ñuy topp ci sunu site bi ñuy wax sunu acte point comme ñu ànd ak yéen ci naafilay weeru koor wi ñu di ko jële ci téere sëriñ son bu mbàkke radiallahu taala anhu bi ñuy wax quratul xayni ñu ànd ak yéen ci guddig ñaar fukkeel bi ci guddig ñaar fukkeel bi nañ ci julli juróom dinañ ci julli juróom-ñetti rakka rakka bu nekk den ci jàng faatiya ak ina ansalnaahu benn yoon ak xulxu wallaahu ñetti yoon ñu baamtul leen ko guddik ñaar fukkeel ñaar fukkeel bi ci julli juróom-ñetti rakka bu nekk ñu jàng ci faatiya ak ina ansalnaahu benn yoon ak xulxu wallaahu ñetti yoon mbokk yi yal na yàlla defar seeni mbir te defar suñuy mbir wasalaamualeykum wa rahmatullah kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquuna ayaaman maadudaat yaa xayra dayfin ataa bilbishri walmadadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi laa zilta dayfan kariman zairan abadan mukarraman biqirat taahaati wa sadadi